salaamaaleykum mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax a baax saa su nekk seen mbégte di suñu bànneex ba tax na ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee ak yen tey nag wax naa leen ko nee naa la euh, xam-xam saa su nekk buñ ci waxtaan dañuy dem ci ñi nga xamante ni bii tey ñoom ñoo ko yellool euh, ci ñi nga xamante ni bii tey dañoo am xam-xam tubaarkàlla macha allah wax naa la ko tey nag ñu ñëw euh, fekk fi ki nga xamante ni mën naa ne kenn dootu ko présenté ci wàllum xam-xam ngi tudd Serigne Modou Ndiaye moo Modou Ndiaye nag ñi ngi koy dàkkantelee ki nga xam te ni moom moo di Nourou Daaray nii bu ñu waxee Nourou Daaray nii xel de dem ci ki nga xamante ni bii tubaarkàlla macha allah mën nañ ne dafa fees tell ak xam-xam tey nag wax naa ko nee def nañ le pour am ko boo bayee ba tey ñu ngi koy wër pour gis ko pour waxtaan ak moom waaye tey la ko yàlla dogal mu nekk nga xamante ni aussi xam-xamam dafa màcc tubaarkàlla macha allah ñu fas yéene dugg nag ci li nga xamante ni moom moo di xam-xam dëgg avant tout dañu koy daal di bàyyi mu daal ñu ñu dugg ak moom ci bi sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax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 émission yi nga xam ne ñu ngi koy def lépp rek ngir leeral xam-xam ak lu aju ci xam-xam euh, incha allahu taala tey itam ñu fas yéenee waxtaani xam-xam jàngale itam aslëf ci xam-xam incha allahu taala. macha allah macha allah sang bi fi may ñëwee mooy lu tax nga naqaree gis yàgg nañ fi bëgg la gis boobu ba tey mun ñoo fexe ba gis la sëñ bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin dafa am kenn ci nit yàlla yu ko waxoon nit moom bu nekkee ca la mu war a nekk rek. Mhm. lu neex a gis mhm. moo xam muy loolu saaxir wala muy loolu baatin mhm. moo koy misaal ci nit ñi nga xam ne mhm. dañ leen tuddee ay niti xaddina fi mu ne nii dinañ am fu ñu toll foo xamante si ne bii ñu ñu maanaam ñu gis leen dootul yomb te loolu la ko waral mooy dañoo nekk ci lañ war a nekk mooy nit ki saa su ne rek war nay nekk ci dara ngir du am jot maanaam am amuk jot baaxul loolu sax suñ Tuubaa di ko daan tere boo xoolee mag ñi ci ni mu leen daan tërbiyaa guddi gi ñu ngi jaamu yàlla suba gi ñu ngi liggéey loolu ci la nekkoon moom sëriñ bi itam moom ci loolu la nekkoon lool comme ni ko suñu Muntaxa di waxee naan ci boroomam la nekkoon ba niñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee loolu rek moo waral naqaree gis gi waaye du la neen waaw macha allah macha allah am na solo sëñ bi maa ngi koy wax léegi maa ngi naan dañuy dugg ci li nga xamante bii moom moo di xam-xam avant tout euh, damay dégg ñu naan seet gis am na seet ñàkk gis am na sëñ bi wàllum seet dama bëggoon tey boo mu doon leeral tey ci seet lan mooy seet sëñ bi. waaw ah, kay laaj nga laaj bu ama am solo laaj boo xam ne eh, mat nay leeral muy seet ak bu nu waxee seet lan mooy seet baatub seet nag olof moo ëpp lum koy wax te seet itam nituk simple moo koy def waaye niti yàlla yi ñoom weesu na loolu ñoom basiratul xal bi lañ am te basiratul xal bi leen dong moo koy maye muy jaamu yàlla. Mhm. boo gisee maanaam nga gis nit naan la man duma gis damay seet kooku bu fekkee la muy wax dëgg dafa moom boo demee da ngay àgg dangay fekk mu am lu ñuy wax basiratul xal bi xal bi nag mooy bëti xol waaw bët suñ borom dafa bind nit ki ci ñaari façon mm-hmm. dafa am lu ñuy wax al jismu am lu ñuy wax ar roox ruu gi nag dafa am lum làmbool lu bari ruugoo ko nag day gis gis boobu moom la ñuy wax gisug ruux gisug ruux googu nitu tasoo fi ñoo ko tuddee basiratul xalb bu fekkee nit ki ci saayir nii rek moom ci ni muy gisee mooy bëti kase waaye jëmmi seet nag moom doon na lu ama am solo ci dundug doomu aadama bi waaye itam noonu la bëree ay façon lool boroom xam-xam yi jàngale ci ay façon yu baree bari waaye nag damay wax ne li ñuy wax al istixaara moom mooy li nga xam ne moo gën a wóor ndax moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon mm-hmm. ndax moom dafa doon loo xamante si ne bii lu ama am solo la foo ko natt rek weesu na ko mm-hmm. boo xoolee nag jëmmi seet kase moom day tënk jëmmi seet kase day tënk waaw waaw moom day tënk moom du du du la leeral lu bari bu fekkee nag al istixaar da dafay dafay dafay def li ñuy wax al maanaam dafay matale mboolem lu lu lu nit ki war a xam ci boppam rek istixaara da koy génne moo tax istixaara moo gën a am solo am na nag ay façon seet yu baree baree baree bare bëri rawatina seet gi nga xam ne nag siiwee na nit ñi xam ko lool te mboolem borom xam-xam yi koy gis rek daanaka ci lay wax. muy mhm. ilmu nujum. ilmu yom mooy mooy. ilmu nujum mooy seetu biddiw. seetu biddiw waaw xam nga suñu borom moo wax ci alquran ne huwa allazi jaalakumu nujuma li tahtadu biha mhm. fi zulumatil barri wal bahri qad fasalna laayatin li qawmin yaalamun maanaam biddiw dafa doon lu yéeme yéeme. doon loo xamante si nii dafa taqaloog dundu doomu aadama bi daanaka ni ma ko mën a misaaleel mi ngi mel ne jëmm ak ruux mhm. noonu la mel moom kenn mënu koo génnee ci dundu doomu aadama bi biddiw yi nag bari na lool am na ñu wax juróom-ñaari biddiw la waaye loolu xilmu nujum bi mooy bi nga xam ne zahir bi la waaye bu baatin bi ëpp na loolu xilmu nujum lu yéeme yéemeel nit sax mën naa dem ba xam ci wàllum médecine maanaam nit ku nekk nga xam gan garab moo koy faj spécial nga xam ne heure bu nit ñëwee ci rek ne la feebar sàngam moom ma dal war ngaa mën a jaar ci biddiwam ba xam feebar boobee gan garab la tolloon net ngir mën ko caa faj loolu mën naa ne kon ngir mu nujum gën naa xóot ke ñun liñ ko jàppee ñun sëriñ si yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi gën naa xóot ke liñ ko jàppee ndax ngir mu nujum dafa doon lu yéeme manees na cee dem di ci xam di ci xam maa ngi dégg sax ñu bari di wax naan seet manees na cee xam faatug doomu aadama bi est-ce mën naa ne sëñ bi. ci seet ci seet. loolu mën naa ne. Mm-hmm. ci xilmu nujum loolu mën naa nekk. Mm-hmm. am na tamit lu ñuy wax ilmu lu mm-hmm. moom tamit xam-xam bu ama am solo la boo xamante si ne bii suñu mbokki pël yi fonk nañ ko lool. xam naa sax dinaa ñëw benn bis wax ci lu yéeme yéeme ndax ramlu dafa am ay doom. seize bunt la bu fekkee pël yi ñoom ñooy def quinze bunt yi. bu fekkee seize bunt yi nag boobu moo ëpp doole. te doom bu ci ne dafay taxaw taxawaayu rawaxaan. ndax doom bu ci ne am na lu muy liggéey. mi ngi mel ne eh, di ma koy misaale am na doom bu ñuy wax nasra. Mhm. doom boobu xam nga dafa gaaw ci xaalis. te ba pare man nga cee en même temps man nga cee seet te en même temps man nga cee liggéey aw yoon woo xam ne da lay may xaalis rapidement. Mhm. lool tamit mën naa ne waaye loolu lépp gën a xóotal rek. Mhm. mooy dem ba may la xam-xam boobu. xel mu ram lu tamit am na solo lool. waaye fi muy ñëw mooy damaa gis ñu bari di ko wax ci ci seet muy seet ci loxo ba xam mën naa ne wala munta ne ndax damay dégg sëriñ su bari di ci wax te loolu mën naa nekk dafa am lu arab yi wax qiraatul kaf mooy al mujisaatu allati yakunu fii euh, kafil insaan aw aw comme noonu ma ko waxee rek qiraatul kaf qiraatul kaf nag lu yéeme yéeme yéeme la ndax boo xoolee loxo suñ boroom mi ngi bind doomu aadama bi defal ko ñaari loxo bu ko neexoon mënoon na ko defal ñetti loxo waaye li tax mu defal ko ñaari loxo loolu ma la maanaam suñ boroom bindul dara ci neen boo xoolee sama loxo ndeyjoor bi gis nga ko nii boo xoolee lii ab un lii boo ko xoolee ñaari rëdd la muy huit loolu boo ko xoolee ci chiffre mi ngi la jox dix-huit boo xoolee sama loxo càmmoñ bii lii ab huit la gis nga ko nii huit nii lañ ko bind ci lii ab un la loolu boo ko boolee mu jox la quatre vingt léegi kon naka la nit mën a seetee ci loxo boo jëlee exemple 18 bi nga xam ne moo nekk ci sama loxo ndeyjoor nga plus ci 81 bi nga xam ne moo nekk ci sama loxo càmmoñ loolu boo ko xoolee 99 la lay jox te 99 moo jàpp 99 asmaaullahil xusnaa yi mooy 99 turu yàlla yi am mhm. kon benn kiimaane ngi noonu ñaareel ba itam boo jëlee 81 bii nga xam ne moo nekk ci sama loxo loxol càmmoñ nga moyen ci 18 bii bii nekk sama loxo ndeyjoor loolu boo ko xoolee daf lay jox 63 80 81 mooy 18 loolu daf lay jox 63. 63 moo jàpp at yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. dund ci kaw suuf. kon loolu tamit kiimaan la loo xam ne suñu borom def na ko ci loxo. te loolu. bi nga daal di koy diviser ci 3 bee nekk ci 63 bi loolu daf lay jox 27. vingt 27 mooy lan. chiffre 27 day chiffre bu mag di chiffre bu ama am solo. ba tey boo jëlee quatre-vingt-un kon chiffre vingt euh, vingt-sept bi dinañ ci ñëw boo jëlee quatre-vingt-un nga diviser ko par neuf loolu daf la jox chiffre sept te alxuraanul karim mi ngi wàcc ci bisub ñaar fukk euh, ak juróom-ñaar muy chiffre vingt-sept boobu ci chahri tishan hijriya min ramadan mhm. laylatul xadr tamit mi ngi nekk mi ngi nekk ci weeru koor gi bisub ñaar fukk ak juróom-ñaar kon chiffre 7 bee kon day ñëwaat ak chiffre 21 bi loolu lépp nag ndax damay bañ muy gudd lool waaye am na leneen ak leneen ak leneen ak leneen lu ci des lu baree baree baree bare loo xamante ne bii mënees na koo xamee ci loxol doomu aadama moo tax maanaam ki nga xam ne moo woote woone ab cheikhul asrar la loolu lépp da ko war a xam maanaam waroo yem ci xam ilmu nujum kase wala nga yem ci xam ilmu raml kase wala nga yem ci yeneen xam-xam yi ci des ak lépp soog a toog nag wax ne ab seexul asaraan nga mooy waral boo dee seetal nit ki doo bàyyi dara fa moom. doo bàyyi dara ci moom ndax seet dafa xóot. dafa bari ay mbir. Mhm. waaye yooyu yëpp nag istixaar moo ko gën a wóor. Mhm. waaw tabaarakallah sëñ bi ba tey euh, damay dese foofu ci wàllum seet tuuti rek ndax euh, buñ nee seet xel day dem ci sarax. Mhm. lan mooy yóbbul li nga xamante ni bi moom moo di sarax par seet. xam nga euh, sarax dafa doon lu am doole. ndax suñu borom tabaaraka wa taala moo ko digle. moom mooy ne xud min amwalikum sadaxatan jël leen ci seen alal yi ngeen joxe ci sarax waaye nag tasadduq ci lay mooy saraxe ngir yàlla fi mu ne nii doomu adama lum xam naa foofu sax duma fa dugg ndax mbirum tasawuf la mhm. te boobaa day xóot doomu aadama lépp lu muy def ak lu mu mën di doon ngir loola ñoŋ wala mu am ci résultat mhm. force loolu sell maanaam yàlla lay kase tax gis nga suñ Tuubaa bi muy wax ci mat bu shifaay dane maanaam jëmmi xasida gi day saafara jëpp jàngoro waaye ki koy jàng ngir yàlla résultat nit ki nga xam ne mooy ñaanu mhm. mooy ñaanlu la nga xam ne mooy résultat bi mooy ak sellal mooy yow li ngay def baa nga koy def lu lépp na yàlla kase tax macha allah est-ce que dégg nga li ma la mhm. bu fekkee nag jëmmi sarax dafa bëri ay façon mhm. saraxu tuur deret am na saraxu génnee dugub am na saraxu génne lu mel ne suukar am na saraxe dañoo bari ay façon waaye nit ku nekk da am sa saraxu bopp nit ku nekk ni nga amee sa bisu bopp am sa turu bopp noonu nga amee sa saraxu bopp am sa heure bopp am sa rawxaanu bopp am turu yàlla woo xam ne moom la la suñ borom moo ñaaleel muy daw ci sa sirru am itam aayab alquran boo xam ne mooy daw ci sa sirru ba sax am ci saar woo xam ne mooy dox yow ci sa sirru waaye nit ki nag loolu lépp nag mi ngi ko mi ngi ko mën a xamee ci seet seet gu leer laa wax mooy mooy waral may wax naan ñi nga xam ne ñoo may ñaan lool ñu ci bari te nekk bitim réew ñaare ku ma ci ku ma ci seetal dama naan la at mi bu ci seetluwaat ndax man sama seet audio laa koy def. Mhm. te gën ngaa gàtt dinaa la seetal quarante minutes wala waxtu. macha allah mu doon seet gu wér a wér goo xamante ne nii même su ma la ko waxee sax boo ci amee sikki sàkka da nga toogaat ba mu yàgg nga woowaat ma daani mel li nga ma waxoon kat gis naa ko. macha allah loolu nag mooy seet dëgg-dëgg léegi nag jëmmi sarax nag dafa am at tasadduqul am am a tasadduqu li wajhillaahi am xaas mooy dafa am ay sarax yoo xamante si ne bii maam dafa généralise ñëpp man nañ ko def mhm. du Ndiaye man na ko def yow mi man ko ko def mu jariñ la kii mën na ko def mu jariñ ko boobu mooy ban sarax ñëpp lay jariñ ban sarax la boobu comme li ci mel ne saraxu gerte boo amoon jafe-jafe boo génnee gerte du euh, gerte kemb mhm. suñ borom mën na laa génnee ci jafe-jafe ya bu fekkee da ngaa bëgg a tukki ngay faral di saraxe lu mel ne ay piisons xeetu mel noonu. te mhm. cay jàng summa sabila yasarahu ci sa li mu tur li mu turu yaay. Mhm. nga tifli ko ci di ko saraxe loolu tamit dina yombal ab tukki. Mhm. maanaam te fi mu ne nii aajo yi ngay gis yëpp doomu aadama yi di ko am maanaam nit ku nekk aajo boo am ci àddina. am na sarax bu jàkkaaroo loola direct ngir aajo di fajo barki Sëriñ Tuubaa fi mu ne nii nit jël na ay millions weexale ko ab sëriñ te fekk ne benn doomu tàndarma moo tee aajo jooju faju mais sëñ bi naka la nit di def ba xam ay saraxam moom. waaw loolu nag maanaam léeg maanaam ni ko nit ko xamee mooy nga dem ci ko wóor koo xamante ne bii kii da lay leer na ci yàlla kase ci la nekk. Mhm. alxuraani kase turu yàlla kase salaatu ala nabi kase xasida kase mu mu maanaam mu leer la ne wala nga am yaakaar ci ne kii ku baax la ko sell la nga dem ci moom mu xool la say mbir. Mhm. macha allah macha allah sëñ bi waxtaan bi nag neex na waaye foofu ñu foofu ñu avancé tuuti parce que li war a waxtaanee dafa bëri damay damay jàll ci leneen sëñ bi euh, euh, nopp xale bu jigéen nobbu la bëgg nit bëggu muy famille muy lépp lu mu mënti doon mm-hmm. maanaam doomu aadama mm-hmm. buñ ko waxee xel day dem ci wàllum nopp mm-hmm. damay dégg naan nopp am na ñu naan amul est nopp am na waaw xam nga nopp moom lu am la am nag ñaari bokkul dafa am lu ñuy wax al mahabbatu wa tasxiir mooy fexe ba nit ki bëgg la loolu mën naa ne mhm. waaye itam am na ñoo xam ne dañuy fexe ba def nit ki loo xam ne dañ koy dañuy def luñ ko luñ ko wax rek da koy def wala luñ ko laaj mu jox leen xam nga loolu am na fi am na kilifa yoo xam ne fi mu ne nii amoon nañ ñu leen doon liggéeyal seeni maanaam dañuy wax alxaadim maanaam euh, nu ma ko mën a euh, expliquer comme nit koo xam ne si nii dafa yor place bu mag wala mu yor entreprise mhm. kenn ci ay ndawam ku mu wóolu woon kooku dem sax moom ba yilif ko ba nangu lim yoroon loolu xeeti tasxiir yu ba yi moo koy def loolu nag ci xam-xam bu ñuul ci la gën a gaaw loolu la wax tasxiir maanaam moom bëggu la de waaye def nga ko loo xamante si ne bii maanaam sa kàddu ci boppam munu ko wax déet wala def nga ko loo xamante si ne bii bu la gisee loo ko wax dala koy def maanaam dala koy defal loolu nag loolu kilifa yi moom lañ koy faral di def mooy da gis koo xamante si day def kilifa loo xamante si ni maanaam da koy tasxiir lu ko wax mu def ko lu mu ko laaj ci xaalis mu jox ko loolu mën naa ne loolu nag bukkut ak noob mm-hmm. noob nag dafa danger fi mu danger mooy nit ki nga xam ne da dem ci jigéen ne ko dama la bëgg. Mm-hmm. mu ne la man kat li ngay yëg ci man man yëguma ko ci yow maanaam bëgguma la. Mm-hmm. kookee boo ko tas xiiree wala boo ko noobee laa bëgg a wax. Mm-hmm. ba mu bëgg la boo ko takkee ab dof ngay sëyal. ab dof ngay sëyal nit te kooku charia da koo bañ. te itam man dama cee am ay cas yu bari ndax yi saa da ngay gis koo xamante ne bii day ñëw ci yow. daan ne diw sàngam damaa wan ginnaaw. Mm-hmm. bu ma ko xoolee ma fekk ne daa am lu mu ko defoon avant ñuy sëy loola toj. te yow boobam mën naa fekk nga gën koo bëggaan bëggeel koo xam ne si mënoo mënoo tàqale ko moom te nit ñi fu ne la ñuy dem. Mm-hmm. yenn saa yi sax suñ borom moo lay taw fii xam nga jékki-jékki dem ci xam ndax man nit wax na ma ko. man amoon naa benn xarit boo xamante ne bii dañ daan diggante chaque jour mu jékki-jékki rek supprimer sama numéro mënatuma ko dégg ñu toog ñaari at ñetti at mu ñëwaat ci man. Mm-hmm. ma ne ko fan nga nekkoon mu daal ne ma dama am benn waay boo xam ne dafa jóge Europe invité ma bi ma invité mu jox mu ma lekk bi mu ma joxee ma lekk nag ci la ci laa ko bëgg daal ba mu mujj sax takk ma ma mujj benn bis nag ma ànd ak sama tante dem Casamance foofu benn feet sangu ci ay xàmb rek mel ni dañ maa muuroon muuri ma affaire bi toj mu bañ waa ji fa saase te booba la tàqali koog loolu loolu moo koy waral mooy noob nit te bëggu la kooku boo comme noonu ma ko waxee kooku boo moom ab dof ngay séel ki nga xam ne nag moo sañoon nopp mooy kan mooy ki xamante si ne bii bëggante naag nit ba takku ko mu def loo xam ne dafay ñagal seen diggante ba kenn du ko a yàq maanaam mbëggeel gi day gën a yokk daal jeex na mhm. kooku moom dara dékku ci macha allah kooku mën naa ne bu fekkee nag xeetu noob bi dafa bari ay façon mhm. képp koo gis mu ne la maîtriser naa xilmul xaatim xaatim bu ne laa mën naa nopp wax na dëgg waaye nag dafa am ay noob yoo xamante ne fii nii dafa am noob yoo xam ne mënees na koo toj nag am noob yoo xam ne mëneesu fii nii noob yi nga ne dañ koo liggéey ci xam bi ni wax xam-xam wala ma tabayana te bambara di ko wax ca ceebi saba tomb yooyu ngay gis ñu koy liggéey ci àll bi ndax tomb la yoo xam ne boo ko liggéey ci biir kër kër gi day tas kër goo ko liggéey day moo tax en général ku koy liggéey fu kenn dëkkun nga koy liggéey tomb yooyu kun ci xas ba noob vingt-quatre lay def te noob googu kenn du ko mën a yàq xanaa ki nga xam ne moo ko def waaye kenn ko yor xalima baa nga yor xam-xam bu ñuul bu mën a yàqul amul ndax mbirum raw xa maanaam mbirum raw xaan la waaw bu fekkee nag man nag noob daanaa ko defee ci xawaatim mhm. waaye léegi jéggi naa loolu jéggi nga loolu waaw léegi yaa ngi waaw léegi la ma cee liggéey mhm. moom doy na waar doy waar goo xamante si bii boo ñëwee dama naan la nangam laa koy liggéeyee nga dégg ko mhm. bu fekkee xam-xam boobu neex na la ma liggéeyal la bu la neexul nga dem waaye li ma ciy liggéey du romb 24 heures yi. macha allah kooku moom saa borom defal nañ ci tawféex. macha allah sëñ bi ba tey ndax ay gone yoo xam ne. saa may waxee yow saa soo ne mhm. ba tey mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi ak xam te ne moom moo di Serigne Modou Ndiaye moom itam wax ko ne leen xam-xam dafa màcc ba tax na tey ñu ngi waxtaan ak moom waxtaan bu neex sëñ bi nit day romb ñu tudd ko kii mhm. romb kenn du ko tudd mhm. ma laaj loolu lan la ñu ne ma loolu bayre la ndax bayre am na sëñ bi waaw bayre moom bayre lu am la suñu Fallu Mbàkke moom suñ Tuubaa daana wax ne bayrekat baax na daan ko ah Mbàkke tax nga wax baax na mu daan ne nit ci boppam dina am bayre boo xamante si ne bii maanaam bu ko amee ba faatu nee na maanaam nit ñi ci boppam dem gi ñuy dem ci rob bi bari gin bari nee dina tax maanaam mu romb waa rob bi romb kenn ci nit yàlla yi kooku daan ne waa ana ku bëri mbooloo kii moom mooy kan ñu ne ko mooy diw sàngam nee na kookee daa di koy ñaanal suñ borom daal di koy jéggal daal kat kon bayra baax na dinañ ko wut. Mhm. te bayra lu baax la. fi mu ne nii li tax bayra yéeme mooy te am te bëri ay façon euh, fi mu ne nii daf daf ci am bayra yoo xamante si ne nii dafa am ay aas yu ko war a sangoo. dafa ci mel ni xulubul xalaax. Mhm. est-ce xam nga leen loolu tey laa ko tey da xam naa am na émission bu ma ko waxoon. Mhm. yàgg na lool ndongoloo. Euh, ginnaaw bu dogalub yàlla jàllee. maanaam dafa am bayra bu mu sangoo bu ñu wax xurubul xalaayix xurubul xalaayix waaw ñi xam dara xam nañ ko kooku ko sangoo boo amul kaaraange doo dundaat ci kaw suuf fukki at kon sëñ bi su ma la déggee bayre day ànd ak kaaraange bu wér am na bayra nag yu yamamaay yoo xam ne nii mën naa bañ a ànd ak kaaraange xeetu mel noonu waaye bépp bayra boo xam ne si ne nii li ñu maanaam bayra xulubul xalaayiq wala bayra yi nga xam dañ koy liggéey di ko boole bopp bukki wala ay bëñu bukki wala bayra bii may euh, bayra bii may waaj a wax maanaam chamsul bilaat mhm. xeeti bayra yooyu moom képp ku la koy liggéey ndax ay càngat yu mag a mag la yoo xamante ne bii gis ko ko xam rek ku jafe la mhm. maanaam lu jafe la wala ku la ko nangoo liggéeyal wala bu bul buñ la ko dee liggéey liggéeyal tamit man nan la laaj xaalis bu bari mhm. ndax loolu mbind ma kenn xamunum toll yemi ànd la xeetu mel noonu waaye képp kuñ koy jox te amoo kaaraange moom xamal ne moom doo gudd fan bayra nag dafa bëri façon fi mu ne nii boo xoolee Wally Seck exemple bayra bi mu yor mhm. xam fi mu ne toll na ci addina donte ko mën a way la am mel na moom ñu mën a way ñu nekk ci réew mi te sax kenn xamu leen kenn xamuñu leen maanaam kenn xamu leen am nañu ko dàq woy fuuf te kenn xamu ne waaye eh, am na lu yàlla def ci moom waaye tamit am na bayre bu nekk ci moom loolu nag ñi nga xam ne yàgg nañoo dund ci mystique war ñoo xam loolu fi ni nii am na benn tur bu naan yaa kas héero gis nga tur boobu noonu boo ko liggéeyee yoon ci limban koy liggéey boole koog sungufu ndink nànk ak sungufu rab woowu di daw te mu yéex rek eh, nu mu tuddati eh, kàkataar billaahi lasi laa ilaaha illa hu boo ko sangoo ku la gis da lay bëgg ba daanu mooy loolu ngay gis ñu koy def waali sekk maanaam gis ko di xëm ak xeetu mel noonu bayra boobu moom la la la suñu borom di defal waaye loolu bu amul kaaraange waroo ko jëfandikoo wala amoo yenn adi wala maanaam te tamit bayra tamit kenn du ko jëfandikoo te yënguwoo ci lu ci luy waral siiw ab sëriñ moom mën naa sangoo bayra. maanaam doo ko def rek ab musicien mën naa sangoo bayra ñii nga xam dañu yor entreprise mën nañoo sangoo bayra bayra nag dafa bari ay façon dafa am bayra yoo xam dafa ànd mhm. nit ñi di la coow foo toll am bayra yoo xamante si ne nii dafay ànd ak maanaam nit ñi bu la gisee duñ am saako ci yow mhm. am bayra yoo xamante si ne nii melul noonu dafa bëri ay façon waaye xulubul xalaayax bu fekkoon bayra maanaam dafa am maanaam jëmmi bayra ci boppam bu fekkoon dafa am njiit ma na xulubul xalaayax mooy seen njiit kooku kenn mënu ko sangoo ci àtte kenn du la xam loolu mënta ne macha allah waaw macha allah sëñ bi ba tey ci waxtaan bi ma dem ci li nga xamante ne aussi am na solo ah, ci góor muy ci jigéen muy wàllum ubbeeku yenn saa yi nit lu mu lu mu lijjanti du sotti mhm. nit fu mu dem duñ ko duñ ko ràññee lu muy lu mu ne xaaral ma dem xoole lii loolu it du sotti mhm. lool boo ko déggee xel day dem ci ubbeeku ndax nit ki mhm. yenn saa yi di nga tëju tëju boo xamante ne bi dañ laa war a ubbi pour sa mën a gën a yokk waaw loolu mën naa ne eh, liy tëj nit nag bari na maanaam nit dina takk soxna sax soxna si tëj ko loolu mën naa ne loolu lu wér la xam-xam bu wér la dafa am lu ñuy wax ilmul istintaaq am lu ñu wax mul bas am lu ñuy wax basul mu am lu ñuy wax basul xuruuf yooyu muy génne yooyu nit ki itam rab nii mën na koo tëj nit ki itam ay jëfin nii ci ci maanaam ci aada mën na koo tëj maanaam di matt say loxo maanaam di dagg say we ci say loxo wala di lekk ca ndab ba pare di ci wiccaxaat wala nga ciy raxasoo wala di di di maanaam di sol dàll di njëkkee dàllu gauche wala di dugg ci mu néeg te taaloo lam bi xam nga yooyu yëpp fi nii yu wér la yoo xam ne si ni dafay tënjët ak jànni sa ñaari wajur yooyu yëpp fi mu ne waaye ubbeeku itam dafa am xam nga lu tax ma ne lu ubbeeku dafa am maanaam boo xoolee ñi nga xam ne xam nan xam-xam bii nii man may waxtaane dëgg maanaam ñoom foo leen fekk am na ci ñoo xam ne sax doon am ay tool doon am ay dara te ñooy ëppale nit ñi liggéey ñaare benn ñaar ñaar ñaar dina ubbi nit muy càngat du wér ak turu yàlla bu wér maanaam man ci boppam xam naa benn xawaatim bu ñuy wax baatinu musallas maanaam xawaatim boobu xam nga ci lu muy dox xawaatim boobu boo amoon aaju dëgg maanaam lu ci mel ne nga soxla ab som bu bari ci xaalis man na maa dugg sama néeg liggéey xaatim bi bas ko def ko lépp toog sikar ko fi ma toog nit woo ma jox ma xaalis boobu xam nga loolu mën naa ne te loolu tamit xeetu ubbeeku la am na ci turu yàlla yoo xam ne si ni nit ñi dañ koy maanaam nit da koy liggéey bu fekkee xam na ko laa wax bu wér ba mu ubbi ko loolu tamit mën naa ne waaye daf cee am cangat yu am doole yoo xamante si ne bii ci alxuraan la ne yii tamit doon ay tegtal ngay ubbeeku moom lu am la waaw loolu gars yi wax toog muy dox mm-hmm. loolu lu ama am la mm-hmm. lu wér wér la nit mën naa sangoo loo xamante si nii daf koy yombalal lu jafe woon mm-hmm. maanaam jeg maanaam jegal ko itam lu sori woon loolu mën naa ne mën naa nekk bu wér te en général bu fekkee sangoo nga sangat gu wér dëgg da ngay gis ne sa wërsëg jamono jooju ni mu ñëwee bokkut bu njëkk nga commencé connaissance yi am bunt yi dëgëroon di ubbeeku xaalis waaw link yi mhm. billaahi la si laa ilaha illa huwa alxayul xayum ministre yi ak musicien yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci ci ci ci tiktok beeg internet bi di wax te ñu xam leen mhm. kenn ku ci dut sangu amul sangat lu am la lu wér la gis nga turu yàlla moom moo jafee bënn gis nga bi yenn saa nag nga sangoo benn garabu la tëj loolu am na am nga lool lu koy waral lu koy waral gis nga xawaatim dafa garaaw mhm. gis nga xawaatim képp ku la koy bindal war naa doon loo xam ne da koo maîtriser mhm. commencé nag ci euh, musallasul xasaali ba ca asruna alfu buyut billahi lasi laa ilaha illa wa fii ma toog musallasul xasaali ba ca asruna alfu buyut leen lu ne mën naa ko bind du ma xool te loolu lu ma jàng la ndax man gone laa demaguma fenn mhm. sama dund gépp ci gëstu laa ko def ba ma mokkale alxuraan bi tey maa ngi gëstu xam-xam ba nii may waxee yow damay gëstu xam-xam mhm. waaye xawaati moom moo maanaam moo mën a tëj waaye alxuraan yi kase moom mhm. kenn kenn ku ko mën a sango ba tëju moom amul xanaa lenn kay mooy tax nga tëju mooy di sangoo alxuraan pare di mooy yàlla kooku dong moo mën a tëj macha allah di sangoo alxuraan mhm. ba pare di mooy yàlla ci jigéen mhm. kooku moom day tëj nit macha allah sëñ bi ñu ngi woon léegi ci ubbeeku waaye nag dañuy dañuy rek dem ci beneen xam-xam boo xamante ne bi tey waa Europe bi nee nañ ñoom lan moo tax yéen doo leen boole ci xam-xam yi ndax parfois dañuy dem pour lijjanti li nga xamante ne moom moo di ay kayit mais day dëgg doo dégg sëriñ boo xamante ne bii dala naan wàllum kayit dama cee ay a lool waaw man boo xoolee sax man li ëpp ci ñi may ñaanal waa bitim réew yi la loolu saa borom moo ko dogal man kayit li ma ciy ñaanee xasida xasida la xasida suñ Tuubaa xasida ngay ñaan wenn wu bayit tamit ci laay ñaane ci kayit te suñ borom defal na ma ci ijaaba hmm? barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te ku ma ci ñaanal itam ci kàttanu yàlla da ngay gis résultat ak ak pays boo mënti doon kooku taw fii pays boo mënti nekk dama ne wàllum kayit laa la wax ñi di maanaam loolu sama mbir la macha allah mbir la moo xam ne si nii suñu borom tabaaraka taala moo ma ko defal moo ma ko may. mais sëñ bi yenn saa yi ñu am i mbir dafa dëgër ci wàllum kayit. déggoo li ma la dama ne la. Mm-hmm. gis nga ñaan mën na lu ne. dëgg la rawatina loo xamante si ne bii da ngaa nekkoon di góorgóorlu ba suñu borom dimbalee la ko sarax la ko nga yor ko. Mm-hmm. xam nga kooku bokkut ak li nga gëstu lii da nga doon góorgóorlu mi ngi mel ne. gone gi doon jàng alxuraan di jàng alxuraan di jàng alxuraan ba mu yàgg suñu borom jël kaamil bi def ko ci boppam la ko téye ci boppam sax moom xamu ko. loolu mayu suñ borom la maanaam da doon góorgóorlu rek mi ngi mel ni liggéey rek. da ngay góorgóorlu ndam ndam ndam yàgg suñu borom ubbi porte yi nga jékki-jékki am lu ne gaañ. bi koy am sax yu ko suñu borom ci boppam moo la ko jox. dëgg la dama doon góorgóorlu ci xasida ak Nooru Daarayni di ci góorgóor di ci góorgóor di ci góorgóor ba suñu borom may ma xam-xam boobu ci xasida gi macha allah allah <laughs> sëñ bi ba tey ba tey dañuy dañuy dañuy dañuy desandi ci xam-xam waaye nag balaa maa dugg ci secret bi nga xam ne ni nga koy may jaam yi damay mm. ñëw ci li nga xam ne itam moom moo soxal góor ñi muy wàllum kattan sëñ bi léegi góor ñi ñu si bëri amatuñ kattan da ngay dem ci sëriñ mu nax la naan la garab yi boo ko jëlee da ngay def 45 minutes def waaye 30 secondes sax doo ko def ndax sëñ bi yow am nga garabu kattan bu wér te garabu kattan bu wér suñ borom tabaaraka taala defal nañu ko te itam li ma ciy liggéey itam ba tey ci xasida la mhm. waaw hmm? ci xasida ak Sëñ Tuubaa ci lay joxe ci ay bayit liggéey ci la ma ciy liggéey boole kook lama lay booleel jox la ko te du am sunguf looy naan képp la lem képp lay am hmm? bu ma la ko joxee lem piir lay am lem original maanaam bu fekkee dan laa takk xale day dañ bu fekkee dan laa liggéey day dañ bu fekkee feebaru zahir nii ay jabataki tension ki nangam nangam yooyu ay ay émorite rek xeetu yu mel noonu xam nga day joxe eh, kii boobu lum ci man di doon moom xamul loolu ndax alxuraan la. te di nga yàgg ci kaw ci kaw soxna. xasida la déggoo li ma a wax gaaw a daanu li wax gaaw a daanu gaaw a àgg ak awra boo xam ne si ni bu jugee du dëgër maanaam day yolam ak awra boo xam ne sax mënatu tëju kooku la ñuy wax ku yom lum ci man di doon secret bii ci boppam day bëtt loola dem faj loola. mais loolu war naa ci wutal sam benn xarit bi tudd Fallou ah, parce que moom nee na moom affaire yi. maanaam dëgëratul ndax sëñ bi loolu boo ko jëlee affaire na dëgër billahi lazi laa ilaha illaa huwa alxayul xayum kiimaanu xasaayid yi laa ko tuddee biteel boobu macha allah képp ko xam ne da ngaa amee faiblesse sexuelle maanaam li ñuy wax néew kàttan nga fajoo ci xeetu garab gone mënoo cee gis résultat mm-hmm. boo ñëwee bayit yi may bind ci bayiti suñ cubaa yi mm-hmm. ba ma ko defee ci biteel jox la ko nga boole kook lem ma wax la na nga koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko mm-hmm. billahi lazi laa xol dina sedd te da nga ma ma boole ki nit waaw Serigne Modou Ndiaye borom Nourou Daara yi nii moom la ñu invité fi nga xam te ne moom moo di ci émission bi fas yéene waxtaan ak moom ci li nga nag sëñ bi bëgg naa nga maye benn secret waaye balaa maa dem secret bi damay ñëw que secret bi moo koy tëj. Hmm. tey gis nañ ne euh, li nga xamante ni bi tey euh, moom mooy xew ci dëkk bi gis nañ ne Barthélémy Dias ñu ngi koy bëgg a tëj gis nañ Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi te dégg naa euh, da nga aay ci wàllum kaso maanaam kuy waaj dem kaso ak ki nga xamante ni bi tey moom moo dugg kaso ndax tey garabu kaso am nga ko sëñ bi waaw loolu lu am la maanaam mag ñi sax daana liggéey loo xam ne koo ko jëfandikoo doo dugg kaso xam nga mag ñi dan daan aar ñoom seen bopp laataa nangam di leen dal maanaam nuñ koy wax de fagaru moo moo gën faju mm-hmm. fi mu ne nii moo tax maanaam faaw ñu gëstuwaat xam-xam fi ne nii am na secret yoo xamante ne bii mag ñi daanu ko jëfandikoo gis nga boo ko bindee ci sa bopp awra mm-hmm. dañ koy bind nag ab big la maanaam ci big xam naa ne sax jumbul sax bu leen soobee ma maye ko ndax loolu wàññiwul dara ndax mhm. xam-xamum boo ko joxul nit ñi soo su képp nga ko jox mhm. secret boo xam ne boo ko bindee ci sa bopp awra doo mës a tële ci sa addina ak loo mën a def ah. lépp luy war a tële sax boo ko doon def loolu am na di est loolu am na dinaa leen ko bindal mhm. wan leen ko incha allahu taala loolu mën naa ne bu fekkee nag wàllu kaso koo xam ne dafa dugg ci biir kaso xam nga am na wenn yàlla bu ñuy wax kay fasa jamakun am na kas laxun doom ya kas laxun la yaxlasun faxakalamun chikaalun jamuhum makkalun kalaw doom boobu ñuy wax kalaw ci la soose di xeex soose bu la tëkku rek xamal ne foofa lay xeex yow moo tax nit bu la tëkkoo war ngaa lijjanti ban xeetu làkkat ndax fi ni làkkat yi kenn ku ne dafa am sirru booy xeexee bu fekkee kalaw ci la soose si xeexee bu la ci tëkkoo rek mën na laa duma moo tax bu la tëkkoo rek bu doonee soose rek demal ci ko xam mu protosé la ci kalaw man am na benn soose bu ma mës a tëkk bu ñuy wax Muhammad yàgg na jamono ji di nekk Touba di di gëstu ubbi groupe ak yooyu mu dugg ci ab groupe leeral benn tur yàlla ne day maye xaalis muy turu wir ma daal dugg daal ne tur yi ku ko liggéey da nga gis jinne sàngam te lam lay laaj boo ko jox dina la faat mu daan may jël ci suuf tëkku ma ci loolu ma xam ne ci kalaw lay xeex ak man ma dem xaar ko fa fii ne nii may waxee yow kenn xamatul fu mu ne. xam nga loolu mën naa ne. Mhm. fekkee nag kalaw ki xam dafa nekk ci biir kaso bi dañ koy liggéey ci li mu turam ak li mu turu yaayam am nañ ko def rek. Mhm. wis ko ci lekk jox ko ko mu lekk du ko demee àll lekk googa mhm. maanaam du maanaam maanaam du ko demee àll ci biir kaso bi. du ko demee àll ci waaw day génn. day génn waaw kooku kenn mënu ci dara. macha allah macha allah sëñ bi yooyu euh, mën naa ne. Hmm, ñu cër la woon ci waxtu mi ngi jeex euh, ñu ba balaa ñu laa bàyyi rek nga tàggatoo sëñ bi da ngay may nag ñi nga xam ne ñoo di mbokk internet yi benn secret boo xamante ne bii saa su nekk rek da nga koy faral di def tey ban sekkere nga ñuy may. waaw tey damay maye benn secret boo xam ne si ne bii bu am solo la. dafay raxas aw yaram. te itam dina ubbi nit dina tax itam maanaam boo ko sangoo li lay waral ne li ngay maanaam li nga xam ne moo lay waral ne wér na mooy lan mooy connaissance yi nga amoon sax te ñu am njëriñ dañu commencé ñëwaat. macha allah ci ngay xamee yow li nga sangootoo wér na. Mm-hmm. te itam boo ko sangatoo itam da nga yëg ci sa bopp ci bis boobu ak tayal goo xam ne si doo xam lu mu doon waaye boo paree boo sawaree rek. Mm-hmm. jeex na mboolem li nekkoon ci saw yaram day dañ. Mm-hmm. ba nga juddoo ba ni nga toll. ak loolu la mënoon a def. te da nga yëg ak ubbeeku. muy lu wér loo xam ne alquraani kase la. am na solo wattiini ba hmm? naasi. wattiini ba naasi. ngay bind. saar woo bind nga teg ci sóortul falax ak sóortul naas maanaam xolons bérébil falax ak xolons bérébil naas maanaam wattiini ba naasi. Hmm. ngay bind waaye saar wu jeex da ngay bind falaxi ak naasi. Hmm. bu ji bu bu maanaam bu àggee loolu noonu. nga xooj ko ba doon euh, saafara nga wut xasum xay. xasum xay nag. yaakaar naa bu fekkee fii fi Ndakaaru moom mën na fee jafe waaye Thiès dina fa am ku dem Thiès rek boo laajee ñi xaw a miin àllu Thiès bi tuuti yan mhm. la ko dafa bari lool nag mhm. boo àggee ni ngay jëndee garab gi mooy da dem ci penku bi mhm. nga daal di tari fatiha wut aw xal sànni ko ci garab gi tari fatiha daal di xas dóor noonu mu dagg nga demaat ci soow bi dem ci ñeenti côté yëpp ba pare loolu ngay boole dëbb ko gis nga sunguf soosu kase bu fekkee noonu nga ko jëndee boo gisoon ko rab di daaneel léegi nii boo ko defee ci ndox nga wis ko ko léegi rab yi bàyyi ko sunguf soosu kase hmm. waaw boo gisee ku cat jàpp léegi léegi léegi bu ko sangom bàyyi ko boo gisee ku dëm mu jàpp te sunguf soosu li ci gën a garaaw mooy boo ko jëndee nii ma ko waxee boo ko sangoo ci boppam nit bu la masee def dara ci àddina boo boo boo tëddee guddi sa raw xaan ci boppam dina la wax ne nit mas na maanaam mas na laa def dara sunguf soosu kase léegi sunguf soosu nag ngay jël nga boole ko saafara si nga sangoo ko juróom ñaari fan hmm. boo paree dencal saafara si defal defal tawarkal am na solo am na solo sëñ bi ñu bàyyi la nga tàggatoo. xanaa di wax euh, wal xawla saddit wal fuaada nawiri yaa mun si dan xat juttali bi suwari liñ fi wax mu néew ak a bari yal na lépp doon loo xamante si ne nii njariñ la loo xamante si ne nii nit ñi dinañ ko jariñoo te itam liñ fi wax mu néew ko bari yàlla caa borom def barke ba niñ koy defee di ci am résultat ci tawféexu suñu borom euh, yàlla na ci ñëpp amee noonu résultat di ñaanal réew mi euh, gën a am jàmm di nuyu itam sama euh, sama sama sama sama wëllëre sama mag sama lépp mhm. muy Cheikh Baara mhm. maa koy nuy bu baax a baax di ko ziare mhm. di mboolem ñi nga xamante si ne nii sama soppe yi nga xam ne ñoo nekk Europe yëpp ñu ngi leen di bu ma jëlee ci nuyoo bi rek bu ma ko tegee ci euh, Serigne Cheikh Fall mi nekk États-Unis rek mën na maa nuyoo waaleel ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi sëñ Fall